mbokk yi tey jii di altine ñaar fukki fan ci weeru koor gi guddik tey di ñaar fukkeel bi guddi ak benn ku ca julli ñeent rakka rakka bu ci nekka gannaaw fatiha nga jàng xul huwallahu ahad ñaar fukki yoon bokk na ci ngëneel naafila googi mel na ne ku moomoon àdduna ak li ci biiram dundile ko ci yoon yàlla mel na ne it ku jàng tawreet ak injil ak zabor ak furqaan te buy génn àdduna dana mel ne bis ba mu juddoo ci ñàkki bakar ñu ñaan sunu borom kàttanal ñu defee ko ñu ko santaanee daje ci ak ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu